Ousmane Sonko ak liste électorale lii dana bokk wala bokk tu bokk coow loole des nañ di ci wax ba léegi rek mu mel ni pënd ba wureegul ci coowal lu ni mel yéenekaay bi di enquête nag di ñu xamal daal ne daanaka jaayante doole bi mu ngay wéy digganteem ak kilifa yi jamono ji moom Ousmane Sonko ak administration daal sagarang fay xeeñ ba léegi ndaxte direction générale des élections moom na daal gisu ko ci lekk liste mu mel ni jamono ji daal dañu jël pataas bu tànk jër daal di koy delloo foofee ca biir daaf ca Ndella Fall mi nga xam ne nag moom moo ca nekk leen ni jamono ji moom la mu xam ne daal moom mooy DGE amul benn compétence boo xamante ne ni war na ko mën a def ngir amal ab action ci fichier électoral ba bu ñu sukkandikoo ci suñu jee nattaango euh, le peuple yéenekaay ci loolee nee na ñi nga xam ne naka ñoom ñooy direction générale des élections ñoom lank nañ ndaare ne mukk duñu ko euh, joxe jàppale nag ni euh, fi ñu toll nii ca ndee la moom na daal Ousmane Sonko nekkul ci lekk liste électorale moom dellu sukkandiku ci bu Cour suprême yéenekaay bi nag nañu Alioune Tine moom nee na du dégg lu ni mel ndaxte disqualifié na rek ñi nga xamante ñoom ñoom ñoo féete ca boruka DG jàpp daal ne nañuy doxalee dara jaaru ci yoon bés bi le jour moom nañu naal jamono ji yëf yi pëccëxoo bu metti rek la ci gis ca affiche ba bu ñu koy xayma Sénat mu ngay des rek di sermoné waa DGE waaye bu ñu koy xayma ñoom ñooñe nee nañ fouras duñu ko dégg mukk Cour suprême ba euh, Cour justice bu CEDEAO moom naka dana ci rek joxe dëggam fii ak juróom fan ci weeru Euh, bi ñu nekk le témoin yéen i kaay nañu ginnaaw ba nga xamante nag Sénat dañu ko daal di euh, désavoué euh, ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waa DGE jamono ji daal ne nañ dañoo fipp di def appar résistance yéen i kaay bi nag nañu jamono ji Valdiodio Ndiaye Alioune Tine ak société civile ba ba ci sax expert électoral bi nga xam moom mooy Ndiaga Sylla ñoom ñëpp daanaka dal nañ ci kaw direction générale de élections cooloole Sud Quotidien yéen i kaay moom moo ko xëy nag daal di fësal tey ji ndaxte ji Euh, normal sax Sénat daal di euh, wutali li nga xam ne daal moom mooy DG ngir am dogal bile waaye daal li ñuy naqarlu jamono ji bokk na ci gis ab administration électorale boo xamante ne nii moom la muy taxaw rek di def moom mooy euh, caaxaane li nga xam ne daal maanaam du ay caaxaan bu ñu sukkandikoo ci Ndiaga Sylla Alioune Tine Afrikajom la mu ca teg rek jamono ji moom mooy ñoom li ñuy gis daal moom mooy fexe ba dindi fi na Sonko ca na mu gën a gaawee bokk na ci nag li nga xamante ne ni moom mooy coow li fi lëmbe Alioune tam ñu xëy fekkaat jàngat ko ci tukkal l'info mu ñuy xamal daal ne jamono ji euh, bu ñuy euh, toppee daal norme juridique yi ak dogal yi nga xam moom la institution yi daal di taxawal jamono ji daanaka euh, moom mënuta gis rek li nga xamante ne ni moom mooy doxalin gu jaar yoon tukkee ci administration bi li nga xamante ne ni mu ngi toog di ko seetaan Alioune Tine nekk koo xamante ni daal ne na ca ndee na muy doxale dara baaxu ci Vox Populi yéeni kaay ñëw ak ñun jamono ji ci recensement général ba nañu nag askanu Sénégal jamono ji rek ëpp nañ euh, fukki million ak juróom ñett ginnaaw nag ba ñu ko euh, seggee seggaat ko bu baax a baax jàppale nag ni ab basculement la bu euh, am solo boo xamante daal nemmeeku nañ ne góor ñi ñoom ñu ëpp jigéen ñi bu ñu koy xayma fi ñu doon ni des na ci tamit beneen coow lu ci laxasu mooy ñi nga xamante ni daal jotuñ leen a recensé bu ñu sukkandikoo ci li nga xamante ne Vox Populi yéene kaay xaatim jamono ji ñoom ñooñee taxaw nañ rek indi coow ci li nga xamante ne mooy direction de la statistique le quotidien le quotidien nañu nag jamono ji eh, résultat ya leer na nañ juróomeelu ko recensement général bi le dafa mel ni eh, góor ñi ñoom ñoo gën a taxaw ci li ni mela eh, bu ñu koy xayma nag Mbàkke moom mooy département bi nga xamante ni daal moom moo gën a peuplé maanaam nag moom moo ëpp ay nit l'observateur yéen i kaay yóbbu ñu ca na ña seen waxtaane ba léegi coowal ngóor see ñu fa daal di sulli taal ko jàppale nag ni jamono ji l'enquête bi la mu fësal rek moom mooy juróom-ñaari mëneer yi nga xam ne daal ñoom ñoo ca newoon ak ak woote ñoom ñëpp jamono ji daal euh, ñoom identifié nañ leen membre nag ki nga xamante ne rek moom daanaka gis nañu ko mu bokk ca njabootu diine bu rëy foofee ca biir Kaolack jamono ji moom daw na waaye localisé nañu ko rek ca biir Gambie Interpol jamono ji rek euh, mu ngi ci ay ko war yéene bi nag ne ñu jamono ji liste ba bëri na loola la tribune yéene kaay ci loole xëy na fàng rek ci xitamu njëkk nañu tey fukk ak benn cay doomi aadama la ñu ci teg loxo ñaar ñi nga xamante nag ñoom ñoo jiite woon ñu fi jamono ji ñenn ñaa nga bi ñeneen ña ca boru ka Mali alerte yéene kaay la ñu koy ndarkeppe waxtaanee coowal amadu Ba ak ne ba muy amal jàppale nag ne ba mu yeggee ca caajaay yéenekaay bi nee nañu nag amadu Ba moom def na fa ay digle ci wàllu ko euh, koom ak yeneen yu ni mel lay bëgg-bëggam mbokk na ci rek euh, gën a suqali yooyu lekk gox-goxaan bu ñu ko euh, joxe réew mi waaye daal li ci leer bu leer moom mooy maître Oumar Youm daanaka na mu ko dalalee neex na ak askan wu takk bu ñu sukkandikoo ci alerte yéenekaay Aïcha li moo lu ci yéenekaay xëy ci bésub tey jii ngeen jàngat ko ci kaw jàmm ak salaam léegi wax ñu ngi lay jaajëfal. sant ak ngërëm ñeen na lay tamit. merci beaucoup maa ngi nga passé une très belle journée. ngeen doog jàmm. jërëjëf euh, Grégoire Ngom ñu jaajëfal ko bu baax a baax mbokk yi des leen ak ñun léegi léegi bu baax bi noppee dañuy dikkaat ci plateau bi bu ko defee ñu ànd ak Kajoor Cissé daal di waxtaanee xibaar yi nga xamante ni mu gën a fës ci web bi.